mu ngi noonu di daw moom Lac Rose mu ngi noonu kay pap kaay kaay kaay kaay ñu xaar ko kaay ñu ko mu ñëw moom Lac mu ngi noonu naka moral sant yàlla alhamdulilah mel na nga absenté de non mukk mosuma absenté tey na sama xel dal na bu baax a baax a baax sama waaj boo ko xoolee xam ni xam ni pare na yàlla nañu yàlla suturaal rek yàlla ànd ak ñun may ñu ndam. lan nga gën a bëgg xeex wala bëre. lépp lañ pare kon buñ ñëw rek baax na parce que préparé nañ xeex préparé nañ bëre kon buñ fi fekk rek alhamdulilah. jërëjëf Pape Ndoye kontaan na si bu baax a baax Gris Bordeaux ngi noonu. Gris Bordeaux le Bordelais de Villeneuve Saint-Georges. sama ñaan nangu na. sa ñaan num nangu. ah booy bis actuellement nii affaire yaa ko ndekkee yaa ko téye non mooy wuy ma. mais nag àllarba bu ñëw dama lay débranché de yoo xam nga maa la branché. mais Jules ba léegi ne nee na moom moo ma branché. Jules waaw Jules bi mën ba Jules dafa branché wu sax bay branché kenn. Ah, nee na man de dama. Eh, tegoon teg Jules nee na nag Jules moo la branché yow xam nga mu baax li may wax yow xam nga ni maa la branché Jules ku mu mën a branché. Ah, loolu la woo de. Jules daa branché boppam bay branché kenn. nee na man damaa lëmas jaan maa la branché. <laughs> mais maa ngi lay ziar. ci loo nekk maa ngi jàmm. waaye alhamdulilah ñu ngi ziar lu bëri waay. nan ngeen andee Lac Rose. waaye comme comme ko gëj a indi ah, parce que mbër mi moo wane loolu moo tax ñëpp ne ci ginnaaw amoo mbër bu defee li war a def ca entraînement yi dooree ko parce que entraînement mooy lépp yeneen yëpp ay lu mënul ñàkk la waaye entraînement mooy lépp mbër mi nga xam ne tey yàlla dogal ko mu sori lool dëkk ba Malika entraînement moo fay njëkk moo fay mujj an day entraîné bu mu lëndëm kooku bëgg na dara waaj soo ko waajoon waaju ko sax ci ses quatre derniers combats kon nga xam ne combat bi am na fu mu ko tollu am na fulla bu mu ci wane. moo tax phase écrit supporter phase yi doon nelaw sax dañoo yeew kon loolu xel war mën naa dal comme am na ci li li ci des nag dañ koy bàyyi ak yàlla parce que mbër moom li bon mooy ngay bañ a def li nga war a def waaye boo defee li nga war a def li ci des da koy wakkeelu ci suñu borom moo tax waaj bii moo tax képp koo gis fii rek xamal ni amuloo sikki sàkk ni Lac Rose tey bu bëre woon ak adversaire am ba fa ñuy bañ ba ñuy yegg fu coono di ñëwee Abdou Faye Saram mooy ñëkk sonn. loolu daf leen ko woon parce que même Tapha Gueye tamit dafa bëgg ñu bëre ba mi temps. waaye dégg lu mu lax dama naan nañu bëre nañu bëre 10 minutes yàlla na yàlla yóbbu ba 10 minutes nga xool ndax liggéey nañ wala liggéey ñu amoon laa ma mën nga ko entraîné ba taxaw bëre ci ñaari minutes kenn du xam loolu liggéey man combat yi ma bëre yi ma daj coono entraîné ko ba taxaw oo top mooy combat yi nga xam ne yàggul combat yi ma entraîné dëggantaan ba taxaw ba mën a bëre 120 minutes dama ko bëre ci ñaari minute moo tax làmb ji damay bëgg damay bëgg ci kàttanu yàlla ñu bëre fu coono di ñëwee kon xam suñu mbër lan la indi te yàlla na yàlla may ndam lu sedd guy ci barke alxuraan ah lan la war a moytu ci aw ma lenn lu ma koy moytu na ko jox cër na ko jox cër na ko jox cër bëre fulla ak fayda bañ ko may dara aw ma lenn lu ma koy moytuloo jërëjëf kontaan naa ci moom bu baax a baax ah Thiam Thiam nam naa la maa leen raw wàllu TV tey wéte tey xam naa wéte naa leen de ah waaw ah, benn la gars yi nee nañ les spécialistes mi ngi toj dëkk bi. les spécialistes je pense que ne borom xam-xam yi fi war a ñëw sax ba léegi ñëwaguñ fa. monde lamb képp koo xam ne mos nga takk ngemb yaa xam Ibou Ndafa nga yaa xam Birahim Ndiaye nga yaa xam Balla Beye numéro 1 mu nga nee toog ak ñeneen ñoo xamante ne marqué nañ seen époque lamb bëgg nañ ñëw seen xam-xam boobu ñu ñoree nar ko denc yóbbu ko si xabaar jox ko seen doom yi loolu moo waral sax li ëpp importance pour les spécialistes am ay ndaanaan a amul laxas dafa évité boor làmb la ñuy wax à sa globalité li commencé ci cumukaay ak ca ngemb ca ñaan ca état physique ak cosaan ak aada yëpp day am ci les spécialistes tous les jeudis incha allah à partir de 21h. dama laa say nga yàgg ci cumukaay bi te combat Serigne Ndiaye bi baax sa nga ñëw wax li ngay wax rek yéeg ci kaw tribune tey lan moo tax nga yàgg. booy xool sa ça fait longtemps su mbëri Fass di bëree may war a ñëw su ma ñëwee dama ñëw si bi wax ak ñoom. dem yokk tribune jàpp sama ñàmbur tey jii nag combat bi ñor lool soxal ñu c'est parce que Lac Rose quand même waruñu ko yéene wala waa Fass waruñu ko seetaan mu périr noonu nekk naax saay dafa ñu jox satisfaction war ñu bëree war ñu fit war ñu jom war ñu nangu jamono ñëw nag gàlla góose mu nekkoon ci ay jafe-jafe tegale ay defet bu ñëwaatee nag choisir euh, mbër boo xamante ne ndaanaan la bu jëm ci yoon ñu koy wax Balla Balla ànd ñun nag jox ñu boppam di xëy ñun di entraîner di gonta ñun di entraîner xaw naa dee ci préparation bi kon boog li suñu devoir mooy su jotee ñëw ànd ak moom taxaw ci cumbukaay li ba mu tas ça fait ça fait très longtemps ça fait taxaw ma cumbukaay yi mais dama ñëw taxaw yokk ko doole yokk ko xam-xam yokk ko xalaat yokk ko lépp lu mu mën doon voilà lamba gi nii waaw li yooyu lamb léegi lamb sànq ba léegi sànq ba léegi genre yi mi ngi fi am sànq ba léegi genre genre problème yi sànq ba léegi mu ngi fi am. waaw mais il faut dire que nag la provocation jegewul suñu côté ndax ñaari mbër yi sorante nañ trop benn mbër baa nga fële tribune A benn bi nekk côté B. léegi bi nekk A nag bu dee ñëw ba ci ba B di provoqué di sànni ay galaaj moo tax booy di excité wu nii mais policiers itam sonn nañ trop te ñu ngi dàq ñu ngi puus ñu ngi yóbbu mais nag yooyu yëpp tamit war nañ ko assainir lamb dañu war a commencé di assainir enceinte bi y' a trop de monde te loolu rek mooy problème mu làmb. est-ce que dama la bàyyi nga régler sa njaboot loolu mën naa nekk ba tey. nga régler sa njaboot affaire baa ngi bëgg a ëpp. nga ni. lu mu sant nañ ko ko delloo ba ba ñu ba làmb yi yàqu. ëpp naa ne bu mu yàqu. alxuraan na yàqu ñoo ko ngi noonu ay moom la coolin moom bokku ci. gaa yaa ngay coow moom mu nekk ci ay bagage am rek Pape Pape laa bari na buru tey de toppal ma mbëri yi ci bari na buru tey. na coow tey. li bari na tey. ndeysaan commandant bi daal moom xaw ma jeng la ma kii commandant bi moom li may wax rek ak tolérant commandant bi. commandant. gé giree ngi noonu le bordel de Villeneuve Saint-Georges. eh eh coow amaat na fële daa mel na lu lan rek Lac de lu xew lu xew coow li bari na pap waa lu xew ñu ko doon bandi foofu ñu ko koo bëre bul hésiter lu xew. Lamine man tey li ma jaaxal. waa Fass ñoo doon perturbé waaye tey gars yi nañ leen ah. ah gars yi tey ruube nañ leen de. non ruube mënu ci am ah lamb noonu la ruube boo yenn booy ñun ay ñun yàgg nañ ci affaire yi parfois mbër day bëgg da lay bëgg a perturber mbër bu mbër bu newul ci dara da lay bëgg a da lay bëgg a yëngal ba nga ba nga ba nga ba nga ba sa tempérament ba sa tempérament yéeg dépassé na loolu làmb boo jekkee waroo sa waroo sa waroo sa perturber actuellement nii bataille psychologique la rek entre de deux a ngay def sa ay bagage ba pare ñëw sànni ko waa mbëri yenn boo yi nga xam ne <coughs> mënuñu seen bopp daal di yuuxu mais ñun ñi nga xam ne xam nañ mbër mu mbër mu pare ak bu parewul ñun dañuy dañuy jàpp suñu self rek waaw ah. tuur ndox ci ab bouteille sànni la ko tuur la ko wala ñu sànni la ko ndaam lu mën a yàqal moom. non non mais boo nga xam ne se est des yoo xam ne dañuy dañuy gaaw a tàng duñu comprendre mbër bi lan la ci jublu mais ñun ñi nga xam ne yàgg nañu ay combattant lañ ñun ñun dinañ xam mbër bi la ci jublu ama saafara boo songoo ci biir géew gi daal daal dañuy xëpp xam nga da ngay bëgg a yëngal rek mais am na expérience bi. bëgg naa bëgg naa ko bu baax a baax. Aïcha Mohamed demal plateau ma dem côté cumikaayu fii sa Balla waxtaan ak ñoom demal cumikaay en attendant ma dem foofu noonu Pape Ndiaye waxal ak moom. aywa Mohamed ñu dem plateau ñu dem plateau Père Palla waxtaan ak ay ganam bu ko defee ñu dem ci cumukaayu Fils de Balla waxtaan ak ña nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ndax seet na Balla Gaye numéro 2 moo ngi foofu Pape

di tudd du ko gërëm ay mbëri làmb ay promoteur kon tey bu mu ñëw ak tànkam ñu tudde ko bis mu ñëw toog ci plateau bi war a wax ak famille làmb alors